jërë ngeen jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a safoo taamu li nga xam ne mooy GCB kenn ku ci nekk fa nga nekk ñoo ngi la fay fekk di la jox suñu loxoy xol te di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi dellusiwaat nañ ci seen émission bi nga xam ni wala boog seen jàngat wala seen chronique euh, actualité bi nga xam ni ñaari euh, dara bu xewee ci réew mi daan ci dikk xam ngeen nag suñu génn ñaari ci réew mi ñaar a koy waral muy lu xew ci euh, réew mi ñu bokk jàngatandoo ko wax ci liñ ci xam wala lu xew ci diine ji ñu xam wax ci liñ ci xam bu ñu ci xamul dara ñu dem mat ku ci xam dara mu ñëw daal ñu koy wax loolu nag tey moo sabab suñu émission tey bii nga xam ne moom lañ fa yéenee amal tey. Euh, dañuy dem rek pili euh, bala ñoo bala ñoo dañuy dem ci li nga xam ne moom lañ bëgg a suñu sang bu tedd bi euh, Cheikh du Kara Mbacké xam ngeen ko ci réew mi di ko xam ni kenn laam-laameetul xam-xamam ci réew mi kenn laam-laameetul ni mu bëggee Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul waaye kenn laam-laameetul itamit ni nga xam ni noonu lay taxawoo xasida yi waaw tey nag ñu. dox ba dajeek vidéo bu ñu dégg mu wax bu doon ay son mën nañ koo jàppee li ñu monté bu doon am mbind mën nañ caa maandu waaye vidéo la boo xam ne moom Serigne Modou Kara moo cay wax wax ja nag euh, dañ leen koy tegal ngeen dégg ko bu ngeen ko déggee ba pare daan ci ñëw euh, ban taxawaay lañ ci am ban jàngat lañ ci am loolu lépp incha allah daan ci ñëw dalal ci itamit borom xam-xam bu xam lool mbindam si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ñu jàngat euh, waxi Cheikh Modou Kara ji ndax defe naa wax ju nekk ci pénc mi moom comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ni woon euh, lépp lu moo ni leen yàlla nee na yonent ban bu leen commentaire no comment jël leen ngeen jëfe waaye lépp lu jëm ci man nag su leen neexee am ngeen ci ay xalaat noonu yi la ñu jàppee ni nag kilifa yi fi nekk tey roy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu waxee ni yàlla nee na yonent bi nee na dañuy jëfe duñ ci lam-laame mais bu ñu demee nag ba wax loo xam ne nag dañu jàpp seen xalaatu bopp la euh, su boobaa daañu ci am ay euh, commentaire ñoo ngi koy ziar bu baax a baax nag moom sang bi di nuyu rawatina rakkam euh, maam Thierno Mbacke nga xam ne moom suñu wëllër la suñu xarit la lan la Cheikh Modou Kara Mbacke wax dañuy dem euh, déglu ko incha allah juste après euh, ñu daal di dellusiwaat jàngat ko Cheikh Modou Kara Mbacke. waaw moom bëgguma mu génn waaye. mënuma ko ñàkk bañ a wax. waaw ndax dafa am ñetti cell meer yu ko mos a romb Darou Salaam. cell meer lu bu mag. ak bu xaw a mag ak bu ndaw romb ko ci ëllëg sa ba waxtu wa dellusee bu ndaw ba képp retourné romb ko mu fettesu ko mu doon jëmmi nit taxaw doon xale mu ne ko démb bi ngeen fiy jaar ñett ngeen woon mu ne ko am ah, man ak la woon ak sama baay sama yaay yoo demoon xew man rek maa dëpp ku tedd ki laaj ko ne ko ndax suñu jëmm ji xam nga jinne nu mu bëgg mel mel nii ndax suñu jëmm ji man nga man nga koo nuru nurlu mu ne ko su ma ca amee ndigal mu ne ko bismillah rek mu ne mu taxaw ne doon fa ku tedd ki jëmm ji mu ne ko ndeem kullu nafsin zaiqatul mawti mënta ñàkk bu ñëwee bu ci egsee nga ñëw defal na ko waaw maanaam bu dee jotee nga ñëw defal na ko maanaam moom mooy ki bind asamaan ak suuf dem ba mu neex ko mu ñëw fi indi fi jëmmi nit tànn fi mu war a jaar mu ngi noonu mbokk yi euh, la ci kàddu yu mu yëkkati wax ci euh, Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul euh, li mu njëkk a wax ci njëlbeen ga du loolu moo ñu du loolu moo ñu tax a jóg ci yëf yi waaye bu ñu demee ba mbindam Cheikh Ahmad Bamba nga xam ne gis nañ ci lu bare bari rawatina ki ñuy invité dinañ ko laaj bu ñu demee ba gis mbindam si Ahmad Bamba wax fasliyal jisma ay suruhu faaraxani fil xabri laa tubliyan hu dëhra yallaahu falaa takkil nii ila nafsi fa ahlika kun mujibani aysuma adhoka yallaahu lu ci nekk ñu bis ko ci biir sindi di loolu itamit daan ci ñëw ci ay laaj ci ki ñu fas yéene dalal ndax maa ngi jégalu ci kàddu gi maanaam dama dégg sang bi wax ko waaye ndax ndax sëñ Tuubaa Seexul Xadiim moo bind asamaan ak suuf ba pare wuute tey loolu ay question la dinañ ko laaj kan mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul digganteem ak boroomam ñu dalal ci koo xam ni mësul wax sëñ Touba nee na te néewul fii la ko sëñ Touba bind te ñun bi ñu jaar dalee liir mbindam sëñ ba léegi dara déglu histoire ci ñi ñi ñu koy jàngal mosuñoo dégg ku ñu wax ni ñu sëñ moo bind asamaan moo bind suuf mosuñoo déggit ku ñu wax ni sëñ Touba euh, def na xeet yu mel ni yoo xam ni jag maanaam lu jagoo boroomam la. loolu nag ay laaj ci biir itamit ci ñi nga xam ne itam dañ fay jaare bëgg a yàpp yoonu murit bëgg a diiŋat bëgg ñaawal yenn wax yi mbaa duñu jaar ci port booba wax ni comme dañu wax ni kat ibliis dafa wuutu kilifa gi faatu ci jëmmam mbaa ka ñu jële woon Touba yóbbu ko mbaa ka ñu jële woon euh, fële nga xam ni mooy Jurbel yóbbu ko tuubaa kañuy siyaare ji kan la loolu lépp ay mbir la yoo xam ni gaañaa nga commencé di wax mu nekk loo xam ne itamit bu ñu jommee tollu fii dañuy wooyi borom xam-xam laaj ko kan mooy Cheikh man Bamba Xaadimu Rasuul moom mooy kan digganteem ak boromam ndax yu mel nii itamit loolu lu ci nekk am na dañuy dem directement jëli Serigne Cheikh Fall mi nga xam ni souvent ngeen dégg ko euh, ñu dalal ko fi mooy faral di gunge euh, Bayasan Mesre nit la koo xam nag borom xam-xam la. ba jàng jotee dafa jàng euh, njàng dafa jàng ji mbindam Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul loolu lépp nag mooy li sababu tey ji la ñu woo ko ngir waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy point yi ñu dégg euh, bu ñu ko jotee tamit loolu lépp dana leer ci ñun ñu waxtaan ak moom ci loolu euh, gërëm ko bu baax a baax moom dafa mel sax mi ngi ci ligne bi Serigne Cheikh Fall Sifaoun ginnaaw bi ma la santé gërëm la jaajëfal la ñu bàyyi la nga nuyu ak internet yi lay déglu ci biir réew meeg biti réew. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu abo madiana soxna maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare na ngi lay fay di ziare képp kuy teewlu jataayu GCB di nuyu Baye Assane bu baax a baax di la mm-hmm. jaa jëfal waaw Baye Assane moom tey sax mi ngi ne toog di xool xam nga fan yi moom daa xaw a sonn ci euh, internet bi ndax lang-lang geeg Iran daw ak dem ak dikk bi euh, sëriñ euh, bi ginnaaw bi ñu la jaajëfalee jégalu la nag ndax waxtu wi ku la woo ku nekk Mhm. xam ni yaa ngi ci ay yittey doomu aadama yi euh, waxtu mhm. wi ñu lay woo léegi yaa ngi doo ko jóge ca jàkka ja ba fas yéene woon a dellu ci yittey doomu adama yi mhm. euh, waaye dafa am lu ñu dégg ci pénc mi te moom nga dégg ma teg ko léegi laataa nga dugg ci ligne bi euh, bala ñu ñëw nag ci waxi jooju noonu nan nga ko déggee d'abord dañu bëggoon a xam ci gàttal nga xam le ñu kan mooy Seex Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaw jërëjëf abo madiana son yi bu xam naa de ci wax ci foofu sax ay gën a yomb ndax suñ tubaa sax doonul ku ñuy xam mm-hmm. waaye ñàkkul ni am na lu nu mën a xamee ci moom ndax sëñ bi li tax mu neex a waxtaanee mm-hmm. moom dafa wax ki mu doon mm-hmm. comme wax na ki mu doon nag ki mu doon ki mu wax laneen lu keneen wax yaa ko wax léegi foofu fi ma bëgg a wax mooy sëñ tubaa ci boppam moom dafa wax ni li mu doon mooy jaamu yàlla di liggéeykatu yonte bi sallallahu alayhi wa abdullahi wa xaddimu rasulihi kooku la sëñ Tuubaa wax ni moom la doon kooku mu wax ni nag moom la doon laneen lu waay wax rek yow yaa ko wax ndax suñ Tuubaa li muy jàngale buy jàngale ci wàllu tawxid da ciy jàngale ba mu mat sëkk ndax bu fekkee dafa ñëw ci cadre suñu borom subhaanahu wa taala bi mu ñuy jàngal tawxid dani wa waxidun ma in lahu min saani walam yazal jalla azima saani sunu borom kenn la koo xam ni amul ñaareel kon yàlla kenn rek la ku yàlla rek mbindeefu yàlla nga. ku dul yàlla mbindeefu yàlla. yàlla rek mbindeefu mbindeefu yàlla nga. d'accord ku manti doon. Mm-hmm. bu ma kon bu ma bëggee tënk ci kan mooy Cheikhul Khadim koy mooy ki nga xam ni. Mm-hmm. yàlla da ko fee wàcce woon def ko muy xaadimu rasul. Mm-hmm. mu tudd ko ci wutur. waaye laq garaat boobu ci maqaama. d'accord doonaat lan di jaamu yàlla di liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu la waaye di wax kii mooy Sëñ Tuubaa mhm. ci lim leeral ci boppam euh, waaw léegi nag vidéo bi nga dégg muy circuler mhm. nga xam ni nu nekk yoonu murid mi ngi ko ci dégg à cause de wax ji mhm. léegi nag bala ñoo ñëw ci gravité wu wax ji ndax Sëñ tubaa maa ngi jégalu ci waxin wi ndax tey da ngay da dëggal ni Sëñ Tuubaa moo bind asamaan ak suuf Sëñ Tuubaa bindul asamaan ak suuf Sëñ mbindeef gi muy doon moo yokk maqaamam suñ tubaa ki ko sàkk mooy suñu borom mhm. allahu lazi xalaqa sab'a samawati wal ardi mhm. fi sittati ayaamin summa stawa ala al arshi ila axiril aaya mhm. dafa am yoo xam ni dafa biiru li biiru nag li leer mooy ndax ndax génnee yàlla ci lim moom jox ko suñ tubaa ndax loolu day jox ma xam suñ tubaa ndax génne suñ tubaa ci lim moom jox ma xam yàlla ndax da koy yokk wala da koy wàññi ndax nit mën naa kawe ba kawe suñu borom subhaanahu wa taala munta nekk lu mel nii lañ fi déggoon ci penc mi ci jamono. Mhm. am ko waxoon ci noonu pourtant am na ko waxoon ni. Mhm. li kii wax. Mhm. am na ci sëriñ am na ci ay sëriñ jum ko jëlee ñu topp ci ginnaawam. maanaam li naan xawma lan bu ndaw bu ko waxee ci bu mag ba la ko déggee. naar bu ndaw xayma ba la ko déggee. voilà. wax jooju nag moo fi répété waat ñëwaat lu nuy mun munee la ci biir. sunu borom lépp lu dul sunu borom rek sunu borom a la sàkk. sunu borom nag dana maye maye maye. Mhm. sunu borom dana maye ci xeetu may. Mhm. ba ki mu may ñu mën koo jiiñ lu nekk ndax suñ tubaa ci bu ñuy natt moom ci jëfi nit ak lu mu doon mhm. dangay dem ba munoo xam lu mu doon moom lan la wax ajaban lil kaw ni kon ku yéem jamono la mais tekkiwul na nag mooy yàlla tekkiwul ne mooy yàlla parce que moom dafa jàngale kii yàlla maanaam dafa jàngale kii yàlla léegi ci jamono ji Baye Cheikh euh, Serigne Cheikh bu ñu tollee foofu na nga xam ne suñ tubaa ñu bañ ñu baree ko siñ fan Euh, mhm. ci ay erreur yu ñuy yàkkamti aw ñooñam def mhm. ko wala luñ ko génneel ndax kuy sosal nit moom euh, mhm. boo demee ba gis luñ ni moo ko def moom daanaka ni matatul wax euh, léegi genre discours yu mel nii lan la mën a yàqal yoonu murit waa li muy njëkk yàqal mooy ka ko wax moom lay njëkk yàqal yoonu murit dafa defaru ba noppi defaru googu mu defaru tax na dara mënu koo yàq xëy na nag danga naan kon ñi koy jéem a gàkkal ci lu ñu sukkandiku di wax ñuy jéem a gàkkal yoon yi mhm. xam nga dafa am wax joo xam ne bu fekkee wax ji nu teg léegi dégg nañ waaw bokk na ci wax ji daan sànnee xeer ci murit ñi nii sëñ tubaa ñi bisiwul ah ñi ñibbisi ñi bisiwul nee nañ jinnee ñi am na ñu daan wax loolu kon wax ji am na ñu daan wax loolu kon kii dafa mel ni ku dëggal ñooñu te pourtant nee na day yëkkati maqaamam sëñ Tuubaa mhm. loolu war naa bàyyi xel te sëñ Tuubaa bi muy ñibbisi mhm. bi muy ñibbisi ci ñibbisi sëñ Tuubaa ci la sëñ Abdul Ahad ganee jamono ci la sëñ Saaliw ganee jamono Sëñ Tuubaa moomu nag ñibbisi woon nga xam ni moom ci jëmmi boppam jëmmi suñ tubaa moo ñibbisi raamoo masiri ilaa julber la daan la sa sin la wax yéen sirra maa fi sayri maa raamu la Sëñ Tuubaa waxoon. ndeysaan daal ni ñoom ci seen bopp ñu ngi sàkku sama dem ca Jurbel. Mhm. ca ca atum la sa na bu nu xamoon la ma suñu borom defal duñ ko def. Mhm. Sëñ Tuubaa moom nag moo ñibbisi Sëñ Tuubaa moom moo fi jógee 1927. Sëñ Tuubaa moom lañ defar jébbal ko suñu borom. Mhm. jébbal googu ñu ko jébbal suñu borom nag taxul sëñ Tuubaa jóge fi ci zahir mhm. jóge na fi ci baatin mhm. wala jóge na fi ci zahir waaye des na fi ci baatin mhm. des gi fi def see ci baatin du ma ko wax ci waxi tappale alxuraan a ko wax wala taxsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaquun suñu borom nee na bu leen njortu ni ñi nga xam ne danoo faatu ci yoonu yàlla danoo dee déedéet ñu ngi dund ci ñun ñu leen di wërsëgal te baneen bi ci topp Cheikh euh, Cheikh a Tidiane si almaktum daraan nee na waliyu bi nga xam ne day wane ay kiraama. Mm. nee ci biir moroomi waliyum dafa mel ni jigéen ju gis mbaax. ni muy doyee de ci moroomi jigéenam. muy benn beneen bi ci topp. waliyu di dund yàlla may ko ci maqam bu faatoo lam ko mayoon a raw. sëñ Abdou Khadre dañ ni ko ndax waliyu mën naa soppeeku ay jëmm yu bari nekk fu baree bari mu ni waliyu yambare yi. mu ñu ne ko ndax waliyu mën naa soppeeku. jëmm yu bari nekk fu bari waaw. seet doon jëmm yu bari mu ni wàllu yàmbare bi de mën na ko <laughs> kon xam nga ni kon kooku jàppewul loolu muy dara mhm, mhm. te wàllu ci boppam nee na bu fekkee da lay xool ci benn bët bi muy dund mhm. sëriñ bu mat sëriñ laay wax muy wàllu yu ñuy wax di xaarif bu fekkee da lay xool ci benn bët bi muy dund boo faatoo dana la mën a xoolee téeméeri bët kon bu fi jógee daa mel ni ca la suñu borom di yokkee maqaamam li ko waral mooy maqaama mi suñu borom di joxe. da koy tafal nit ci ci digg ginnaawam moo tax wàllu bu fi jógee ginnaawam di dox maxaama mi yi joxe nag ci gën dënn lan koy taf bu la borom rombe dootoo ko gis. Hmm, d'accord léegi nag yooyu moo jar di jël di jàngat. dafa am yu gën a kawe. Hmm. gën a intéressant yu nu war a mën a wax ci Sëñ Tuubaa. Hmm. Sëñ Tuubaa jóge fii yàqul dara ci nguurug suñu borom bi. yàqul dara ci maxaamam suñ Tuubaa. ndax lim fi def rëy na. lim fi def rëy na te dootul fay ba mukk. ndax ba muy jaay jënd na ko. la mu jaroon jënd na ko damay wax rek ni. Euh, lu bari ndokk sax ba ko ñu ba ko bari xamul. ndax defe naa ñiy wër leen li ngir wax jàpp ni nit ñi dañuy wax ci Sëñ Tuubaa lu bees ñoom am na kon loo xam ne buñ ko xamoon kon penc mi lakk. dëgg la waaye yàlla nag ndox ba mu jël secret di am fu mu ko def ndax li mu bëgg leeral ci foofu mooy Sëñ mbay mhm. dañu woon ci biir kata ba laaw yooyu Sëñ Tuubaa wax ci xaatibatul munaajaati bil xat nga xam ne lam ca wax ku yàlla defarul dëgg dëgg mënoo dégg wax ji. kataba yaa ngi dégg. Mhm. yàlla defarul dëgg mënoo dégg wax ji. Mhm. wax jooju nag boo ko nattee ci biir am na lu ci ki wax sànq jël. Mhm. am na lu mu ci jël waaye bayit boo ko mënee wax te mënoo leeral li ñuy wax. Mhm. war nga cee mën a bàyyi xel tuuti. dëgg la suñ sàmbay ci boppam mi ma doon leeral. Mhm. Euh, ci wàllu googu. nee na katabalaaw yi suñ Abdullah diggoon na ma ci yu bari. nee na ma yu bari suñ sàmbay moo wax ni. yu bari teg naa ci sama bët yoo xam ni yooyu kenn sañu koo tudd. dëgg la kenn sañu koo tudd kon loolu rey na. dëgg la. waaw loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax jiw sànq laata dugg maa ngi doon wax ni buñ naan mm. diwkat moom jógewu fi moo bind asamaan ak suuf ñu jekk cee gis mm. ci ay bëyitam bëgg naa nga firil ma ko bala ñu mm-hmm. ñëw ci laaj bu mujj bi mooy uh, wax fas liyel gis ma uh, mm-hmm. ay su ruuxu faaraxani fil xabri laa tubliyanhu dëhra yàllaahu ak uh, mm-hmm. waftax lan war ak bokk waaye fàtte naa beneen way bi Euh, waftala naa kula baaban kunta faadul dinaa ci ñëwaat léegi ñëwal ma ci mm-hmm. euh, li nga xam ne mooy bayitu euh, wax gis mm-hmm. ma ay surumhu faaraxani fil xabri laa tubliyan hu dëhëri yàllaahu waaw gis nga foofu mm-hmm. ci waxi zahir boo ko doon firi li ma naan waxi sëñ tubaa moo gën a naqaree firi ndax ñenn ci mag ñi dañ ni sëñ tubaa yenn bayit yi bu koy wax dafa mel ni ñun lay jàngal ni ñuy ñaane waaye moom yàlla génne na ko foofu foofu dalaa jàngal waaye boo gisee wax arab bi li muy tekki mooy sàmmal ma sama jëmm mhm. ci saa bu duggee ci xabru mhm. te bu ma ci nattu mukk mhm. laa tubli yan wu dëxra yàllaahu kon doonul ku ni nattu ci àdduna moom Sëñ Tuubaa kon loolu xeetu ñaanin la d'accord xeetu ñaanin googu da ngay li ni ni wax alquran nga fekk ci aay yoo xam ne dafa ndurulu contradictoire da nga koy fekk ci biir xasida Sëñ Tuubaa yi fekk ci bayit muy wax ni sunu boroom bu may faatu defal ma nangam ak nangam nga fekkaat ci beneen bayit mu ni du ma faatu. Mhm. waaw loolu ndax amul déggin kon. am na déggin. voilà loolu nag moo fees dell ci xasida yi xëy na sindiine la gën jege rek. Ah, waaw waaye ci biir xasida yi yooyu da ci am. beneen bi ma fàtte mooy falaa ni ilaa nafsii fa ahliku kon mu mujibanii haysumaa adhuuka yallaahu. mooy benn rek ci tënk bu ma bàyyeeg sama bopp ndax boo ma bàyyeeg sama bopp ma sànku. am na solo. yàlla ku mu bàyyeeg sa bopp nga sànku. waaw li ma jublu ci laaj boobu. waaw mooy dafa am tey ñoo xam ni euh, ay taalibeem la ñuy woote woo. Mhm. te jàpp nañu ne àgg nañ ba naagu. Mhm. kon wane ni ku sa kilifa ki nga yaakaar àddina ak àllaaxira di waxe nii. Mhm. yoon jox ak yàccaaral waru la. léegi nag léegi euh, nag sëriñ bi. bu ñu demee nag léegi ba kilifa yi jiite di waxee nii ci yoon wi. fu taalibe jëm. waa fi taalibe jëm de. ndax am nañu ko am nañu koy gëm. Mm-hmm. waaye am na ñu ko weddi mm-hmm. ñi ko gëm ak ñi ko weddi nag ñaari xaaj la ka ko gëm mm-hmm. doo xam fu mu toll ba gëm ko ka koy weddi doo xam fu mu toll ba weddi ko muy ñaari gëm ak weddi sëñ bi fan la taalibe yi jëm waa ñaari fa taalibe jëm rek mooy suñ tubaa ni woon wa in lam uh, xaw ma nu mu ko waxatee uh, bu ngeen demee ba jamono lëj ba xamatoo leen fu ngeen jëm yam leen ca la yonent bi sallallahu alayhi wa ak mag ñu baax ñi in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bi ma bihi sa xiyaaru salafi comme mhm. moom tënk nañu suñ tubaa te ñaar la fi bàyyi woon bàyyi na fi njabootam bàyyi fi xasida yi mhm. kon moom loolu mooy référence te histoire suñ tubaa amul lu ci nëbb mhm. lépp leer na dëgg la loo ci dégg muy léew ci dégg ñuy wax ñuy werante rek kon kooku ñàkk dëppoo am na te sëñ ahmadou rafax yi mbàkke day wax ni yàlla na fi yàgg te wér amiin nee na da faral di dégg ñuy wax ni nee na da ngay di dégg ñuy wax ni nangam ak nangam mag sàngam nee na nee na mag moom ndax amul tur amul sant <laughs> te xisa yu bari da ngay dégg ñu ni mag sàngam ñu ni kun la waxati nangam na la wax ki ko wax lan la. lu leer la wax ci biir wax jooju di nga fa dégg. ñett li bari ay histoire yu ñuy créer. waaw ah bien mm-hmm. mm-hmm, mm-hmm. léegi histoire boobu mu sukkandikoo loolu siiw na loolu xëy na kon loolu day doog a agsi ci moom loolu jiitu na. ak yeneen yu ni demee waaye lu ci mënti am nanu wax ka ko wax. kan la ak fa mu ko jëlee rek. am na solo parce que wax ju moom dafa laaj dalil. wax joo xam ne foo dem fekk ko fa nag laajul dalil. am na solo. waaw loolu rek moo ci nekk. jërëjëf kon Baye Cheikh di fàttali ni incha allah bu ñu tey la màggaluk euh, daaru xuddoos gi. Mhm. Euh, di bés bi nga xam ni moom lañu euh, wax ni moom lañuy màggal. Mhm. génnuk àddina. ku mhm. tedd ku tedd ki. wala du noonu. waa histoire boobu sax de ni mu demee mooy. waaw Cheikh Mouhamadul Moustapha. Sëñ Tuubaa bi mu fiy jógee. dafa am ay dénkaan yu mu ko dénkoon bind ko ca. dënnam teg ko fa. boole koog li ni moom la Sëñ Tuubaa mujjee bind mooy bayit boobu jëmm jooju wax sànq muy xaati batul mën a jaati bil xatti. lu ci mënti am moom la Sëñ Tuubaa mujjee bind ak moom la njëkk a bind moom xamuñu waaye loolu la xasida gi teg. Mhm. mooy deyaali gi mu mujjee deyal ak suñu borom ci wàllu bind loolu lay teg. Mhm. léegi ci foofu nag dafa amoon yu yu ko Sëñ Tuubaa sant. Mhm. ci ñi ko war a taxawu ci nin ko war a denceeg lépp sëñ Modou Moustapha bi mu defe loolu. ba noppi ba yabal ay jëmm ñu dem yóbbu ko. nga mhm. xam ne sëñ Basiru moo jiite woon délégation bi te sëñ Basiru moom may wax moo bind histoire sëñ Tuubaa borom mi na baaxil xadim mhm. ca ña demoon la bokk ba nu demee sëñ bu Buso jiite ko jiite julli ga ba nu ca bët ga nga xam ni fukki fan la tolloo woon ak ak juróom-ñeent guddik àllarba bin ko dencee bët set ñaar fukki fan ci tam xarit ndigal ga ko sëñ Tuubaa joxoon tam def ko comme nam ko sante woon loolu lay sante suñu borom loolu moo indi màggal gu njëkk gi loolu lay sante suñu borom def ga mu jëfandikoo ndigal sëñ Tuubaa loolu moo indi màggal gu njëkk gi mooy gii sëñ Modou Moustapha mhm. ah, woote woon boppam. kon mu mel ni digganteem ak euh, màggalu 18 safar gi. weer moo mhm. dox seen diggante. waaw weer moo dox seen diggante. macha allah. waaw weer euh, moo dox seen diggante. kon nag rendez-vous bi ñu amlante woon ak yow Baye Cheikh. Mhm. bul ko bul ko bul ko fàtte incha allah kon jàppal ni fii fukki fan ak lu teg. Mm-hmm. Euh, daal dinañ commencé ak yow ci sëñ Tuubaa fa mu commencé woon. Mm-hmm. laataa tukki ba ba ca tukki ba dellusiwaat gi màggal gi lépp incha allah defe naa diggoon nga ko mbokk yi. Mm-hmm. wér na diggoon nañ ko mbokk yi te ci kat yàlla ak mbaaxam danañ ci ñëw. incha allah te bu ñuy wax nañuy sóoraale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nañuy wax ak nit ñi ci lu tolloog seen xel. alayhi salaatu wa salaam moomu ñuy wax. ci cadre baatin bu dee baatin ku koy wax ku nekk ku koy siiwal ku nekk amoo ko. baatin. waaw ku koy siiwal ku nekk amoo ko xam nga bu sëñ Tuubaa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. la anta lazi ontita xitma tan wa aadama baynal maa'i wa tiini yan jali mhm. ba pare yonent yàlla aadama ñëw di maamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon baatin am na waa dëgg dëgg nee na ba ko suñu borom di jox nubuwa <laughs> eh. boobu suñu boroom aadama mu ngi ci diggante ban ak ndox kenn moo ñëgu ko mhm. fa la bi làqee woon garaatu nubuwa doonoon na ko kon la njëkk maam di ñëw mhm. kon weddi wunu baatin mais dafa am loo xam ni mhm. mbir la jëwriñ bàyyil ma yem foofu balaa ma demaat ci leneen am na solo jërëjëf Cheikh bi mhm. kon ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di rafetlu xam-xam bi ak taxawaay bi waaye nag jéggulu yitte yi ñu dog ngir émission bi macha allah ñoo ko bokk amul solo. aywa jërëjëf Fall. ñoo ko bokk jërëjëf jëwrin mi ngi noonu Serigne Cheikh Fall si faawoon ngeen di àndal moom mooy doon gunge Baye Assane Mesere ci seen xalaat moom la doon jël euh, gërëm ko bu baax a baax sant ko yéen bokk yéen tamit gërëm leen sant leen di wax Cheikh Modou Kara Mbacké wax dëgg yàlla wax ji lu tax ñu indi ko ci penc mi di ko jàngat ak di laaj ay xalaat ñun bu ñu mënoon a jot ci moom dañ koy woo léegi laaj ko ay laaj yeneen question man maa ngi ay question yoo xam ne ci wax ji bis bu ma jàkkaarloo ak moom dinaa ko ko laaj ndax euh, kuy sa sëriñ ñu ni Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul mooy sama sëriñ euh, fan nga jokk ñu ni kër Cheikh isaa Diène kon yaa nga ca biir yoon wa boo déggee ci biir yoon wa loo xam ne nag sa maam say baay say sëriñ musuñu ko wax ci yoon wi am ku ñi sët la ci yoon wi wax na ko ah c'est très normal nag nga laajte ndax sa baay say sët wala boog say baay say maama jàngul woon loola sëñ bi jàng ko nga laaj ko ci pénc mi moo tax mu ñu waral ay question yi laaj xam naa bis bu yàlla dogalee ba ñu jàkkaarloo ak moom dina bari questions yu bëree bëree bëri yu ñu ko laaj eh, ci ndax eh, ki mu wax ni moo bind asamaan ak suuf moo ko bind su ko bindee tamit ki ñu wax ni eh, dafa dafa Iblis dafa jël jëmmam faatu ci ay questions yu bëri mu ngi ci waaye ak lu ci mën a doon daal sëñ Tuubaa Seexul Xaddim li mu bind leer na. ñi ko fi toogal di ay xalifaam kenn mësu fee toog ba jóg wax ni moo bind asamaan ak suuf buñ ko déggee ci jenn waaye nag c'est tere normal ñu laaj ay question réew mi nag dafa toll ci réewum laaj ay question juste pour laaj ay question ndax bu amee lii ak lii ak lii loolu lañ doon indi mbokk yi gërëm ci bu baax Serigne Cheikh Fall euh, mi nga xam ni moom la ñu euh, doon dalal tey gërëm bu baax Serigne Abdoul Aziz Diaw mi nga xam ne wax naa leen ko dinañ ñëwaat léegi ci liggéey bi ak nu mu gën a yaatoo gërëm xam ni moom itamit ma nga euh, fële ca el moom it gërëm ko bu baax sant ko ca kanam tuuti xam naa ni wala boog sax altine ndax seen xalaat amul tey jër ngeen jëf mbokk yi.